Elimane Diouf ñu ngi lay nuyu. mais ñu ngi leen di fay Mbemba di nuyu seeni auditeur di lu seen invitation. yow yaay secrétaire général bu confédération syndicat autonome wu Sénégal gis na ni fan yi daanaka tension politique bi jax na lool ci diggante ñi nga xam ne itam ñoo fare ci nguur gi loolu yëpp la ko indi mooy ba nu waxee ni dañuy toxal li nga xam ne moo jëm ci élection présidentielle yi manifestation yi nag daanaka nemmeeku nañ ko fu ne ci biir Ndakaaru ak yeneen région yi am na ay nit sax yi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan li mel nag mel na ni yitteel na leen yéen ñi nga xam ni yéenay central syndicat yi. Euh, jërëjëf ah, en tout cas dañ ci profité ci sa antenne pour euh, euh, jaale ñi nga xam ne famille ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci situation de boobu di wax ne confédération des syndicats autonomes yàlla dafa def jour bi président war a def annonce boobu dafa coïncider woon ak suñu réunion bureau confédéral mooy instance su CSA bi nga xam ne dafa doon saytuwaat en tout cas préoccupation centrale bi ak préoccupation syndicat yi jokk ci ñun. Mhm. Euh, biñ ci génnee euh, ci lañ def benn communiqué boo xam ne day wone ne d'accord ñu ci li président jël comme mesure dàq élection yi parce que noonu lañ ko mën a jàppee parce que boo nee maa woote woon pour. Euh, ñu comme càmbar pour dem élection le vingt cinq boo dàqee décret bi cela veut dire que dàq nga datu élection yi donc condamné woon nañ loolu woote woon nañ aussi pour que président jël ay mesures pour rétablir euh, vraiment calendrier électoral bi mu dellu si fa mu waroon nekk jàpp nañ ne ci loolu euh, ñun préoccupation bu mag la ci ñun parce que euh, bu Euh, situation de kaw amee liggéeykat yi ñoo koy njëkk a ñoom ñooy njëkk euh, am jafe-jafe gis nga si li xew euh, par exemple Walfadjri groupe Walfadjri biñ ne dañu tëj antenne bi nangu licence bi mm-hmm. li ci njëkk am mooy ah liggéeykat yi dañ leen naroon a dàq en tout cas quatre-vingt pour cent rek liggéeykat yi fa ne dañ leen naroon a dàq donc loolu mooy wane ne ñun suñu wàll ci Euh, rétablissement situation de euh, tension jàmm am euh, ñu waxtaan déggoo ci luy jëmale këlëg kanam suñu réew daf ñu soxal dafa soxal suñu confédération et loolu moo tax lépp loo xam ne gis nañ ne day yàq mbaa gis nañ ne day andi jafe-jafe ci fonctionnement société bi dañ ci àddu joxe ci suñu xalaat. situation bi fi mu toll nii lan lañ ci mën a def ba jàmm mën a dellusiwaat. Euh, fi mu nekk nii yaakaar naa ne liñ ci mën a def ba jàmm dellu siwaat euh, xëy na euh, ak lu njuumte am am président de la république en tout cas commencé na wane ay signaux yoo xam ne xëy na mën na ubbi jàmm parce que yaakaar naa ne mesure bi ministre de la communication jëloon ci groupe Walfadjri nekk na mesure boo xam ne dafa jéggi woon day bu demee ba delloo ko signalam mu war a Euh, euh, émettraat mhm. yaakaar naa ne day bokk ci euh, solution yi nga xam ne dinañ permettre ñu rétablir ci cadre recherche de solution yi gis nañ ci ne jaloog rek boo mën a trou andi jàmm ci situation bu mel ni décision am na jaarul yoon ñëpp fustigé nañ ko wante il faut ñu toog xool nan la ñuy def ba élection am ci délai bu gën a en bu gën a yelloo ak euh, li yoon maye maanaam li constitution maye ak li loi électorale tëral te loolu yaakaar naa ne mënuñ ko def bu ku nekk jàppee fa nga nekk di euh, fustige baa ngay xuloo baa ngay xeex euh, permettre en tout cas bi dafa war a permettre pour pacifier la situation bu ay organisation légal jógee ne dañuy manifester ñu accompagner leen ñu encadrer leen ni ko yoon demandé ni ko yoon permettre bu boobaa excès yi am ak euh, yàq yi am yëpp dina wàññeeku et mu ubbi ay bunt pour ñu jaloge pour que politique yi seen biir ñu trouver euh, moyen am un boo xam ne consensuel lay doon ñu xool nan lañuy càmbarewaat seen euh, cadre bi permettre ñu tëgg élection yi naam dina jafe parce que lu tolloo quatre-vingt-treize candidats ñoo nekkoon en liste ñan la ñu war a permettre ñu demaat ci élection yi di ñëw loolu laaj na vraiment càmbar dëgg laaj na waxtaan ci seen biir. 93 mhm. candidats yooyu daanaka bëri woon nañ waaye mujjanteel gi ñaar fukki lañ ci tànnoon ñoom nag nee nañ falaa budd le 15 wala euh, le ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février faaw ñu amal élection yi te gis nañ itam société civile bu taxaw temm ñoom sax nee nañ dañuy dox doxub ñaxtu ni ki tey jii euh, li ni itam ci jamono ji nga xam ne ñu ngi wax waxub jàmm alors euh, dañ ko war a encadrer wala dañ leen bàyyi ñu war dox seen doxub ñaxtu. waaw yaakaar naa ne dañ ko war a encadrer may leen ñu wone li leen naqari parce que réewu démocratie lañ nekk nekkuñu ci réew dictature ci yoon en tout cas ci lii suñu constitution tëral eh, ku bëgg a manifester am na anam yuñ lay eh, autoriser ou accompagner la ba nga mën a def sa manifestation pacifique nga xam ne dara du yàqu mais dès que ñu ne la da yi nga ne da ngay manifester ñu ne ah amuñu possibilité autoriser la te bu manifestation amee ñi fay jiitu mooy ay force de l'ordre commencé dóor commencé euh, door ay lacrymogène commencé tas nit ñi yaakaar naa ne loolu mooy jur euh, événement yi am ni donc euh, vraiment li ñuy wooj gouvernement muy mu continuer pacifier permettre nit ñi exprimer seen naqar exprimer seen gis-gis ci jàmm euh, ñu continuer waxtaan ba trouver solution. waxtaan mooy indi lépp ci jamono ji nga xam ni ñu ngi njort ni président de la république woote na ab dialogue te dialogue boobu yéen euh, CSA da ngeen ci teewam. bon ñun xamaguñu ndax dañ ci teewam duñ ci teew parce que xamaguñu condition wu dialogue bi parce que dialogue bi mën na nekk dialogue ànd ñoom sa ñoom politique yi rek comme mën na nekk dialogue boo xam ne force vive yëpp lañ ciy woo. comme xamaguñ lan la nag euh, ñun dañu nekk ci euh, langu société civile di accompagner lépp loo xam ne mën na pacifier mën na permettre euh, acteurs yi nga xam ne ñoom la élection yi soxal dans un premier temps ñu daje pour trouver ay solution donc li ñu soxal daal ñun confédération mooy nan la ñuy def ba réew mi jàmm dellu si fii ñu organiser ay ci ay élection ci période boo xam ne vraiment dina rester ci cadre calendrier bi parce que du ma wax tey tey comme ni ko ñenn ñi di waxee ne le vingt cinq dina am élection parce que loolu yaakaar naa ne buñ bëggee ubbeeku waxtaan dina jafe trop ñu tëréer ko ci mais am na dat yoo xam ne buñ ko méngale ak code électoral méngale ko ak constitution bi xëyee na mën nañ ci diir yu gàtt yoo xam ne ñu yegg ay ay décembre comme ni ñu koy waxee Euh, dinañ ci mën a tëgg ay élection ba euh, pal euh, président de la république ni ko yoon tërale xibaar bi dafa mel ni ñëpp ñu ci bari fësal nañ ko ci ëttu tassukaayu xabaar yi ab proposition amnistie loi amnistie générale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di woy détenu politique yi ndax jàpp nga ni li ni mel mën na indi ab dal waaye yaakaar nañ ne lu mel noonu euh, xëy na day dugg rek ci wàllu ni ñu waxee léegi ci wàllu Walfadjri groupe Walfadjri day nekk loo xam ne préalable la peut-être pour permettre que lépp loo xam ne ni ñaa ngi doon ñaxtu ci wàllu nañ bàyyi prisonniers politiques yi ñuy jàpp pour un oui pour un non ou bien nga manifester ñu jàpp la tëj la kenn xamul luñ lay toppe pendant des années loolu moom yaakaar naa ne bokk na ci li nga xam ne dina permettre quel que soit nag suñ mënti d'accord ñoom dina permettre de di di dina permettre en tout cas yombal dialogue ma yombal wut solution pour que ñu dem ci ay élection apaisée jàpp nga ni mooy solution bi no ba jàpp naa ne bokk na ci solution yi parce que loolu rek mënul nekk solution <laughs> loolu rek mënul nekk solution parce que loolu day bokk ci liy rataxal waxtaan <laughs> xëy na mais mënul nekk solution bi a à priori parce que buñ buñ amnistier nit ñëw aussi kan euh, mooy dem élection nan la ñuy dem élection. Hmm. yan condition la ñu waxtaanee ko waaw il faut ñu waxtaanee ko. Hmm. ci jamono jooju itam waxtaan ba nga xam ni wax nga ko yéen premier ministre élimaanu jëriñ ñi dalool na leen ñi nga xam ne ñoom ñoo di centrale syndicale yi euh, rencontre bi ni mel lan moo nekkoon sabab li. waaw rencontre boobu nag euh, man sama confédération bokk na ci ñi fa nekkoon bien que man daf ma fekkoon ci yeneen yitte ba sama premier secrétaire général adjoint moo ma représenté woon moo représenté woon centrale bi foofu mhm. dafa bokk ci euh, lu ñu sàkk woon depuis un bon moment que euh, centrale syndicale yi mën a am ak njiitu jëwrin yi ay ay plage yoo xam ne tous les six mois ou tous les trois mois trois mois sax la ñu waxoon dañ koy rencontrer pour saytu euh, maanaam revendication yi nga xam ne dañoo jàmp ou bien euh, accord yi nga xam ne gouvernement bi am na ko ak euh, liggéeykat yi ou bien secteur yi nga xam ne dans le secteur privé dañuy poser ay revendications yu jàmp te du am solution ñu xool ak moom nan lañ koy évaluer xool lan la ci gouvernement bi war a def comme li jéego pour que moom en tant que premier ministre mu instruire ay ministres pour ñu mën a doxal loolu loolu moo tax rencontre bi li ko sabab yaa bi ñu génne ci élection de représentativité centrale yi dañu demandé woon au président de la république toog ak moom évaluer avant ñuy dugg ci période électorale bi xool fiñ toll ci revendication yi accords yi ñu amoon lan lañ ci Euh, appliqué normalement ak lan lañ ci appliqué wul moom mu xool nu koy sayto donc loolu moo andi yaakaar naa ne mu joxe woon instruction premier ministre pour mu recevoir mu joxe aussi instruction euh, cabinet ne moom dina def tout pour recevoir euh, centrale syndicale et yaakaar naa ne loolu moo nekkoon solo rencontre boobu nga xam ne am nañ ko ak le premier ministre liñ ci jàpp li ci am solo mooy dem nañ fa euh, pour évaluer accords yi nga xam ne gouvernement bi signé na ko en général ak l'ensemble des secteurs xool nañ aussi jafe-jafe yi nga xam ne ñoo gën a fës ci ci kaw liggéeykat yi fi mu toll nii par exemple bu ñu xoolee question décisionnaire nga xam ne vraiment injustice bu yàgg la boo xam ne am na ci secteur u njàngale bi mm-hmm. ñu ne décret bi pare na décret bi discuter nañ ko signee ko moo des ak génne ko pour que ñooñu ñu rétablir seen injustice boobu boobu ba léegi muy traîner euh, collectivité territoriale ñu ne fonction publique locale lépp décret pare na formation bi moo des et cetera loolu aussi nekk na jafe-jafe boo xam ne euh, ci cadre yu mel noonu rek lañ mën a sensibiliser euh, gouvernement bi à travers le premier ministre pour mu baral mesures yi nga xam ne war nañ ko jël foofu yeneen secteur en lutte du mu ci revenir justice ou secteur yi nga xam ne yëpp ñu ngi yëngatu secteur primaire agriculture pêche et cetera yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne en période yu mel nii kenn du ko saytu rencontre yu mel ni ñu yi ñu amoon keroog àjjuma dafa permettre ñu mettre le premier ministre devant ses responsabilités won ko ne lii quel que a jafe-jafe yi am euh, continuité de l' état dafa war a permettre gouvernement bi taxaw ci loolu ak acteurs yi nga xam ne ñoom la concerne maanaam fonctionner loo administration du travail fonctionner loo fonction publique ba euh, ministre de tutelle yi mën a euh, trouver ay solution ci question yu mel noonu loolu daal moo nekkoon sababu rencontre boobu. nekkul woon négociation évaluer fu ñu toll. non non nekkul woon négociation fu ñu toll xool naka la gouvernement bi di ubbee ay buntam ak liggéeykat yi nga xam ne parce que liggéeykat yi nekk en grève Euh, du central syndical yi central syndical ñoo leen di accompagne secteur de la justice ay syndicats ñoo fa nekk di xeex et gouvernement bi kenn tontuwu leen euh, collectivités territoriales yi amoon nañ pose mais commencé waat nañ mhm. secteur primaire même chose donc ku ci nekk ña fa nekk ak gouvernement bi ak euh, bu fekkee ne daal le secteur privé la aussi syndicats ya fa nekk ak seen i njaatige am na ñoo xam ne ñoo war a rattaxal comme ñun centrale yi comme ministre de tutelle yi comme premier ministre comme euh, ministre du travail comme ministre de la fonction publique ñu war a jouer son rôle pour que fu euh, problème am ñu mën a taxaw loolu moo nekkoon vraiment sababu rencontre boobu. Elimane Diouf ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax ci na nga nangoo tontu suñuy laaj. mais jërëjëf Mbemba ñu ngi leen di remercier di leen féliciter ci liggéey bi ni ngeen koy. doxale yàlla yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew mi yàlla waxtaan yi ñuy séentu permettre ñu génn ci situation bi nga xam ne partout dans le monde ñuy xool di xool di wax Sénégal lu fa xew lu fa xew. di fàttali ne yow yaay secrétaire général confédération des syndicats autonomes du Sénégal CSA. autonome du Sénégal CSA.